Eh, ñu ngi koy baaxee mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi di naafile yoo xamante ni diirub bi nu umee ba tey ñu ko ànd ak yéen di ko jële ci xoratul xay di téere sëriñ bu Mbacké bi nga xam ni téere bu am solo la te bari ay njariñ lool tey nag ñu ngi ci ñaar fukkeelu guddi ak ñett ci weeru koor ñaar fukkeelu guddi ak ñett ci weeru koor wi naafile yi war a doon ñeenti rakkaxa rakkaxa bu ci nekk da ngay jàng fatahatul kitaab benn yoon jàng isaa jaa juróomi yoon jàng xul xu wallaahu ahad juróomi yoon insha allahu rabbi ñaari sëlmal ngay daal di def kon boo julee ñaari ràkkaxa sëlmal defaat ñaari ràkkaxa sëlmal insha allahu rabbi mu doon ñaari sëlmal ñeenti ràkkaxa yi mat ginnaaw boo jullee ak farata fatiha benn yoon jàng isaa ak juróomi yoon xul ahad juróomi yoon yàlla nu yàlla nangu suñu koor te yàlla defal nu kooruk tawféex defal nu it jaamu yàlla gu nu nangu lu nuy am yàlla na nu am yàlla waaye lu nuy ñàkk it yàlla na nu am yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm def fi tawféex ñu leen jox rendez-vous ci ñaar fukkeelu guddi ak ñeenti gi nu jëm ci weeru koor wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu